baax par rapport ak li nga xamante ne moom moo nekk di xew man personnellement bokk naa ci ñi nga xam ne critiqué naa lu bëri la méthode de Khalifa Ababacar Sall bi nga xamante ne jël na ko en participant au dialogue et finalement lu ñu mënti expliquer comme quoi mais dégg nañu vraiment mu wax ni l'essentiel mooy naa bokk rek wax dëgg yàlla euh, mu jaral ko li mu ko jaral loolu man dama ko naqarlu parce que man dama gëm constance pour man politique ñoom ñi koy def warul mën a tax maanaam li ñu dee wax mu bañ a dëppoo ak li ñuy jëfee c'est-à-dire que on en a marre de voir cette forme de politique là comme pour autant nga mën a am rek tey aisance wu nekk ci benn parti ñu xam la ci nga ciy ñafe nga jékki-jékki transhumé ni mu la neexee dem ci beneen parti boo xam ne ñëpp ŋàññi nañu ko pour man loolu amul sens mm. te Sénégal il faut ñu dépasser loolu et ça c'est à cette jeune génération mm. euh, ak moom ñi fi nekk ñi ñu éveillé wu xam ne wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom ngay faral ci wàllum politique mm. du sa yàlla du nu sa yonent bu bu nu defee loo xamante ne teguwul ci yoon da war a mën a ànd ci loolu il faut que nit ñi di xalaat li nga xam ne moom mooy intérêt Sénégal maintenant on attendra de voir ce match qui n'est pas terminé en oui, réalité oui, oui. pour voir vraiment naka la wànnent di mujjee ki gëtam ñoom itam ils sont très attendus waa Pastef parce que coowal amnistie bi dëgg la génnub Ousmane Sonko bi am naa fi sax euh, ay information ñuy wax ne ñu ko doon gungunee comme quoi dafa am division ci seen biir y a pro Diomaye y a des pro Sonko sa à dire que y a coow li am fan yi ci ci parti Pastef vous avez vraiment du pain sur la planche pour que confiance bi sénégalais am ci yéen mu bañ a damm parce que loolu sa va favoriser wala day jox faveur yeneen candidats yi nga xamante ne dëgg-dëgg dañ leen seen ci yenn constant yi pur lu mu metti metti man koo xam ne moom bu mu vertee ba tey daa verte <laughs> wax dëgg yàlla donc waaw xam nga loolu loolu c'est-à-dire loolu yëpp sénégalais yi dañu ko dee atte voilà et c'est important ñu xam ñi nga xamante ne faral nañu leen ci wàllum politique constance bi nga xamante ne am nañu ko ba duñu réeru par rapport ak yenn choix yi ñuy def. c'est important alors soxna Ba oui. important li mu wax. rapidement euh, oui. je veux juste dire que ne. Oui. Euh, dualité la dualité entre Sonko et et Khalifa, Khalifa n'aura jamais lieu. ah am na am dualité boobu ñoom moom lañu bëgg moom lañu bëgg moom lañu bëgg imposer mais du am. pro Sonko ak pro kii dañu doon xeex yoo gisoo loolu. loolu grand yoff mooy manifestation bi ñu woote ah d'accord waaw waaw waaw loolu du xeex mais ñoo xam dañu improviser ñoo xam dañu improviser sànni xeex loolu du xeex mais dualité bi ñu bëgg du mus a am mhm. parce que du benn gabarit yi du benn wax dëgg yàlla force bi du benn popularité bi du benn loolu moom yàlla moo ko dogal. xalifa dañoo jàpp dañoo c'est vrai que élection dañu leen dóor de c'est vrai que. dañuy dóor ba tëdd ci c'est vrai que. c'est vrai que ñoom ba ñuy politique nag sonk mu ngi. ci administration waaye nag sénégalais yi tamit dañoo bëgg changement. gis nga dafa am classe politique boo xam ne nii actuellement xalifa bokk na suñu gàllankoor seen leader politique ci déggin. ndax nee nañ bu muy intégré yeewi askan bi. Mhm. Euh, donc ci ci parcours bu mu jot am également xalifa contribué na ci lu bari. ok mhm. bon loolu seen wax la ñoom mais de toute façon sénégalais yi Sonko lañ choisir mais choisir uñu xalifa loolu moom mooy réponse bi gis nga euh, génn Ousmane Sonko wala génn keneen. ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye kooku moom euh, code électoral moo ko jox droit wu génn battre campagne ki nga xam ne moom mooy le président Ousmane Sonko génnam basé wuñu ko si ay amnistie gis nga ñun génn Ousmane Sonko fu ko basé mooy ñun ñun waa PASTEF ñooy investir ci ci ci terrain bi xeex sa battre gagné élection yi dem génnee ko ñun suñ génn Ousmane Sonko foofu lañ ko teg mais basé wuñu ko si fi nga xam ne ni moom mooy ay ay amnistie par rapport maintenant ak dualité bi nga wax ne mu ngi am xam nga euh, rumeur yi nga xam ñu ngi pro Sonko pro Diomaye à Pastef il y a pas de pro Sonko wala pro pro Diomaye ñun xam nga lu ñu am xam nga xam nga lu ñu am mi ngi mi ngi dugg ci samay ah, questions bien sûr bien sûr bien sûr gis nga gis Pastef dans Pastef mm. il y un projet ñun pro projet Pastef lañ maintenant ce projet Pastef la dafa am un général le général c'est le président Ousmane Sonko gis nga général boobu dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ci biir euh, bateau bi mu nekk dafa soit moom moo toog balaa muy balaa ñu koy jàpp gis ngeen vidéo yi nga xam ne moom moo ko enregistré balaa ñu koy jàpp mu choisir un candidat mu xool ko mu doy ko mu ne ko yow yaay doon sama candidat yamu ci mu def benn vidéo denc ko à l'avance c'est à la prison bi ñu demee ba mu jot ci la ko ñi nga xam ne dénkoon na leen ko ñu génnee ko wax waaw président Ousmane sonku gis nga euh, Ousmane Sonko lépp la euh, nee nañ kii Khalifa moo ko jàngal politique bon tant mais de toute façon lui moom dafay prévoir balaa ñu koy jàpp xamoon na lii yëpp hmm. waajal na boppam xamoon nañu dañ ko dinañ ko jàpp mais tamit xamoon na ne du nekk parti politique bi nga xam ne ni benn nit rek la ñuy ne yow yaa fi ne tank hmm. du yow kenn du fi de hmm. moom wóolu na boppam waaye wóolu na ñi nga xam ne ñu ngi si am ndax xam na ne éthique ak déontologie bi nga xam ne dafa nekk ci ñoom ci moom nekk na si ñi nga xam ne nii ñoom ñooy kan euh, euh, militant au ah surtout nag ñi nga xam ne ni tey ji ñoom ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy suñuy leader national ba pare wóor ko même keneen ku du nekk doon euh, Bassirou Diomaye président Ousmane Sonko ku mu joxoñoon biir Pastef buñ ko génnee teg ko nañ xam na ni le président Ousmane Sonko joxoon na. ak yow mm-hmm. honorable alors honorable soxna Ba ndax yéen waa PUR euh, tey jii bokk ngeen ci candidat yi nga xamante ni dëgg-dëgg bañ nañu Ousmane Sonko génnaat. Mm-hmm. Euh, jàppale candidat am parce que c'est sûr que ni su génnee dina ànd ak Diomaye battre battre campagne pour pour Diomaye te alors qu'on se rappelle yéen ci ci coalition Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko bi mu génnee battre campagne ci élection législative yi gis neen fi ngeen li ngeen li ngeen li ngeen am yëpp mm-hmm. euh, ci ay baat. donc comme pour dire que ni moom am na influence boobu ci askan bi ndax lu nu mel euh, bokk na ci lu tax euh, ñeen ñi war a jàpp ni euh, ñenn ñu nekk ci opposition bi peut-être yéen également yéen a ngi ci biir façon di nga ci di nga ma di nga ma ci indi leeral. Mm. que tey vous êtes contre vous étiez plutôt contre li nga xamante ni moom moo di loi d'amnistie parce que ragal ngeen Ousmane Sonko génn xëccoo ak seen candidat Aliou Mamadou Dia carte ji te xam ngeen ne Ousmane Sonko ci biti peut faire waaw question bu may sawar a répondre la xam nga nag le pur moom euh, dafa nekk parti boo xamante ne si euh, c'est l'exemplarité dans le militantisme doo leen gis ci xeex doo leen gis ci xuloo manifestation bu ñu dem dinañ organiser wu dem suñu manifestation moo tax bu buñ nee manifestation am na diw ak diw nga xeex doo ci gis mu ku ñu ne la waa pur ñoo doon xeex parce que am na foo xamante ne si fa lañ leen conscientiser beneen bi par rapport ak le président Ousmane Sonko dañu bokk ak moom coalition muy la coalition Yewwi Askan Wi àndandoo woon ak moom muy battre campagne ñuy battre campagne leader yëpp yi bokk ci coalition bi yëpp ànd di battre campagne ba am loo xamante ne si am na muy les fruits de Yewwi Askan Wi ñu am ay député am ay maire am yeneen ak yeneen mais ci charte Yewwi Askan Wi dafa am lu am solo lu ñu waxante woon mooy bu ñu demee élection présidentielle kenn ku nekk am nga sañ-sañu dem na damay nekk candidat mhm. Mhm. looloo tax ñoom ñu am seen candidat muy jam jomaay ñun ñu am suñu candidat di le président Aliou Mamadou ja waa taxaw am seen candidat di Khalifa Ababacar Sall ñoom Cheikh Tidiane Dieye ñeneen ñi Déthié Fall kenn ku nekk ak Malick Gakou dem nekk candidat je pense que ànd boobu ànd ànd nawle la woon ànd bu rafet la mhm. ci bëtu li nga xamante ne si moom mooy sénégalais yi nga sénégalais dañu amoon désespoir ci politique mën nañu wax ne la coalition Yewwi Askan Wi en deux mille vingt et moom moo redonné blanchon ci espace politique bi sénégalais yi bëggaat politique am benn yaakaar moo tax sénégalais bu ñu gisee yenn yi rek day am loo xamante ne si. lu leen di métti la parce que seen maanaam genre désespoir la ñu am ci li nga xamante ne si noonu la déroulement yi euh, coalition bi mujjee continuer mais élection yi dañ ne kenn ku nekk da dem ñun. le parti pur avec le candidat Aline Mamadou Dia et le président du parti Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha si ñun on n'a pas de problème avec Ousmane Sonko ou bien avec Khalifa Sall je pense que waa ñun waxuñ ko waa Pastef ñoom ñoo koy waxal seen bopp président Ousmane Sonko di ko wax ñoom ñu ne pur seen fidèle allié la ñu àndandoog ñoom di liggéey ci loo xamante ne si lu rafet la foofu ñàkk a yéene gis nga bu doon ñàkk a yéene kon du ñu investiru li ñu daj yëpp ñu daj ko bu combat jotee ñuy génn non non Penda dañu jëm élection présidentielle kenn ku nekk tu as choisi ton candidat ñoom ñu am seen candidat ñun ñu am suñu candidat gëm ne suñu candidat li Penda di wax ne euh, ñun buñ vertee rek verte nañ waaye c'est la réalité dañuy vert ba pare continuer di def un travail extraordinaire parce que dañu gëm suñu bopp non ñun ñun ñun ragaluñ kenn parce que xam nga kuy ragal kan la kii ragal mooy ki amut appareil ki ragal mooy ko amul mécanisme ki ragal mooy ko amul programme ki ragal mooy ko amul un candidat à la hauteur d'un président de la république Penda ñun on a le candidat loolu unanimité la ci Sénégal le pur Ali Mamadou Dia il est le candidat le plus compétent il est le candidat boo xamante ne si da ngay nangu rek maa sœur Roqe il le candidat boo xamante ne si prestance bi maanaam maanaam da nga xool rek da ngay da ngay xool dangay xool Aliou Mamadou Dia rek jëmm ji rek nga xam ne kii moom. non non man xam nga fan kañ laa. ma nga ca président ba. bi ñuy décider euh, report aux élections. falaa doon jëm coûte que coûte dañuy dañuy tenir. falaa jëm seen ay campagne ba mu solee équipement ba dugg ci biir ci biir tal mën a ko arrêté leen ko da ngeen a mën a jàppe jàpp leen. kenn du ko arrêté waaw lii moom lu tax kenn du ko jàpp. non parce que xam nga lan la. Hmm. liñ naan uude nu mu la gisee rek noonu la lay ëwalee. non ñun non man <laughs> man man man man damaa wóolu sama candidat non Penda man damaa wóolu sama candidat xam naa dina ci ñëw après <laughs> waaye man waaye man dama wóolu sama candida hmm. parce que doonul ne ñun ñi bokk pur sax ñoo koy témoigner mais je pense bien que toute la classe politique ñoo koy témoigner hmm. te olof dafa wax lu am solo nee na ku say noon yi di sang rek war ngaa xam ne am na taxawaay boo xamante ne si am nga ko. kon daal ngeen yaakaar bu baax ñun dañu yaakaar ngay wax. donte ni déggoon nañ fi ku mel ni résultat yi ngeen amoon. waaw mais mais mais moom mi ko doon wax dafa doonoon candidat à la moom demul sax parrainage moo tax man loolu duma ci wax. ku dugg ku <laughs> waaw léegi nag ñun ñu am un boo xamante ne si. soxna mënta émission ba jeex te dugalul ko. <laughs> ñu am ñu boo xamante ne si wax dëgg neex yàlla. Euh, dafa doon koo xam ne ñun du luñ ànd ak moom moo tax ñu di ko wax. objectivement rek la ñuy wax ci moom parce que loolu lañ gis si moom. prestance baa ngi fi compétence baa ngi fi. rigueur bi mu ngi fi te dafa am ñaar yu am solo yoo xamante ne si jàpp naa ne un président de la république daf ko war a am moom mooy la compétence ak le sérieux li nga suñu réew mi xam nga lu manqué des hommes sérieux yoo xamante ne si il peuvent nous sortir d'un point A pour nous amener à un point B te le président Aline Mamadou Dia a aidé ci parcours am rek un cadre des Nations Unies dimbale ay réew moo tax ñu bëri dañ naan non yen ay politique élitiste ngeen di indi seen candidat bi day ñëw di wane ne man ay élite la c'est tout à fait normal parce que lu nekk fi nga jaar la mënoo nekk ci cercle bu day noonu nga ñëw di am lenn noo xamante ne si yaa ngi koy doxalee mu doon koo xam ne xam na li ko fi bàyyi te lenn moom moo ko indi wax na ko nee na lui c'est un homme de développement c'est un homme qui a aidé des pays à se développer des pays en crise les Nations Unies di ko fa yóbbu mu leen di dimbale pour ñooñu mën a développer wu cette expérience la cette expertise là kii là il veut mettre ça au profit du Sénégal moo tax bi ñu jëyee élection yi le 25 la gis nga Sénégal bu ko candidat yëpp toppoon kon situation bi ñu nekk duñu ko nekk parce que candidat yëpp dañu dajee ne dañuy battre campagne jour ouverture bi il était le seul à être sur le terrain dëgg la il était sur le terrain le seul à être sur le seul waaw le le le seul à être sur le terrain mhm. wàcc taxaw battre campagne ñun ba léegi moo tax ñaawee ne di wax nii de naan non 12 jours yi daa gàtt 10 jours yi ñun ñun bañ tàmbalee woon ca cinq ba léegi. arrêté mësuñu arrêté. te kenn jàpp leen kenn jàppuñu. ña nga ca ña nga ca VAD ña nga ca caravane ña nga ca tournée yi ñu ngi continuer di def li nga xamante ne si moom moo ñu war. fas yéene nag nga laajal ma honorable lan moo tax pur ñi ñu leen. waaw parce que c' est pur. lu la mami. c'est que boo ci defee xam ne pur a que c' est wax naa la ko sànq nee naa la le pur c' est l' exemplarité dans le militantisme ñun am na loo xamante ne si sañuñu ko bokkul sax si ñun am na benn façon boo xamante ni cette façon de faire de la politique ñun non non ñun dañu am ligne de conduite boo xamante ni si jàpp nañ ne on fait de la politique. Mhm. mais am na yoo xamante ne si benn animosité bi entre ñu na ñeneen non ñun on fait pas ça. ñun dañuy ñëw dem vers l' essentiel. préparer li nga xamante ne si mooy sunu mooy sunu candidat ak sunu programme. teg ko sur la table ñun dañoo wóolu suñu bopp. d' accord ah, mais mais honorable rapidement voilà Kaolack euh, Kaolack pourquoi c'est-à-dire oui am na wala bokk mhm. ndax euh, yow euh, euh, sa bon certainement di nga ko dëggal sax mhm. génn Ousmane Sonko si toutefois ñu promulgué li nga xamante ni moom moo di loi bi mhm. xam nga ni su boobaa moom ak kii di Bassirou ba publier ko ci journal officiel bi moom ak Bassirou Diomaye Faye dinañ génn ci nu mu gën a gaaw donc mënees nañoo am njort bu rafet ni ginnaaw ba validé nañu loi bi à l'Assemblée nationale lu ñu mel moom mooy jéego yi nga xamante ni moom moo ciy topp mais ku mel ni soxna ba jàpp client ki seen victoire bi nga xamante ni ñoom ñoom espérer nañ ko déjà. déjà fi may fi may li may njëkk a bañ rek. mooy euh, fan yii dualité bi ma gis ñu bëgg a génnee diggante pur Pastef. d'abord non non. ça n'existe pas da ngeen di jëm ci ay jongante. amul non pour le moment mm-hmm. ça n'existe pas. pour mu leer amul ñun ak pur ñu ngi ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. Euh, ñi nga xam ne nag xëy na. dañ leen yónni pour ñu yàq wala jaxase déjà nag waa PUR nag loolu day rejoindre question non je reviens je reviens dafa maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw yaa mais nit ñi dañ koy